daara ji asxaabu cheikh dellusiwaat nañ ci irtiqaal murid bu Baye Ousmane bi bindab Cheikh Baba Lamine ci xatam cinquante neuf mi ma axrajahu alwalid bi maanaa ay yëf yoo ne bàyyam ko seppee moom waajur bi ci yenn téere sufiyanke yi ay wax yoo xam ne ma bàyyi Osman moo ko fa seppee indil ñu ko fii moom la ñu indil fii nii ah léegi nag kon ñu li wax aladame indi la ñu waxi bàyyi indi ñu waxi gars yi nag léegi nañu mën a comparer nañu sepp seppi mooy moxtatafaan mooy wax yu seppee ci loo xam ne ku ne ama min baadi kutubu soviet xaala wax naa radlaxanoo boo fi gisu salis boo demee ci ñetti loxaaj mooy troisième bis minel fotaati almaketi fii numéro safa 41 ci paas bi nga xam ne mooy numéro 41 maa loo xam ne soo yax bii laa la fa jëlal ci page quarante ci troisième juste lan la borom fataat na tox mu ne fa am lay gaayu yàlla yi àllazina mooy xam ne ñoom alluxoo gaayam yi nga xam ne ay gaayam lañ maanaam ay gaayinam lañ gaay mooy gaayam gaay nga xamne ay ñoy ay gaay na lam yasalo joxu wala yasalo na te duñ jox duniyaan fi ñu nek ci adna wa akhir ak ñu jëm ci ñom ñoom ñu jox ta fi musahadati ayni ñu jakko jakarlo ki xana moy ne ay noon ba xay nopp haynoob ba haynoob laaw laaw haynoob mooy wucculaay wucculaay wala ayulaay kon ah, ay suma tawla fa sama wucculaay kon boobu wucculaay la xay wuccula bi nag beneen la moo tax foo nekk rek rasuulu xaq bi da ko war a xam ak buñ ne wucculaay mooy que yàlla wax ne ina la sëriñ bàyyi ko yi may bàyyoo nag laa kooka nag dañ ko tuddee wëccu dañ ko tuddee mësët dañ ko tuddee nëfsu laay dañ ko tuddee dañ ko tuddee dañ ñoom nag duñ jëf duñ jañ mukk di janoog moo tax kon waxuñ janoog laaw ñoom moom fi mosaal ay ni hii daa iman xay noom ba lañ jan lañ ñoom ñi nga ñoom ñooy ay gaay yi nam laaw soo bokkee ca gaay yi gaay nag te bokkoo ca gaay yi ya doo ko gis way yëg talafat même def même bu uutee fi sóori ci photo yi moom kilise ba mën naa jël photo yi dul jeex ak lu photo ya bare bare bare bare bare bare photo bi nga xamante ni ma xenu aynu laahi la cey waaju wala cey waaju photo booba nag dafa am kilifa génne photo ba photo booba génne photo yi fa sóoratu ibrahima tabxaat sapra oustaz gi wax ko de bàyyi ko sóora booba nag de sóoraab sóora ba mooy sóoratu ibrahima ah, tabxaa daf fee nag dëppoo na kon moom wax jëm wax moom ah, borom foto at màkk yi dëppoo naa waxi bàyyi kon moom daf ne ñoom ma suñoo jot ci àddina ak alaaxira dikkal ak moom mm-hmm. kon nag bàyyi na photo bi moom daf fee mm-hmm. nga li ñu wutee ñoom ñaar kële moom kam wax ràññeelu ko xamuñ ko mm-hmm. kii nag daf ne sóoratu Ibrahima waa waa Ibrahima war xam kanu sooy <laughs> ndax photo bi la te bàyyi na sa photo bi moom kenn kenn xam foo nekk wala soo waroon sax bu ñu fekkoon ne xàq xam nañ nga photo falam yaraw si waa sax sama boobu sama boobu lañ mën a gis fotom bi bii atamata ki nga xam ne fa lay bànneexoo moom lañ gën a gis foto foto waaye sama foto Ibrahima la waaye nag kon nag léegi te moo fi des nag kon nag <laughs> ah <laughs> bilaay ñoo am problème problème bu réeré te ñun defuñ ko problème moo tax nag problème bi des fi. dëgg ñu dem di toppatoo bakkan bakkanam eh bu leen toppatoo kii kii mun leen koo xam moom dem leen toppatoo ji bàyyee baax eh bàyyee baax borom kaala baax borom kii rek ñu dem kaalawu ñu moom rek langal ne maay bàyyi waaye borom kaala boobu kenn gisu ko borom kaala ga moom <coughs> xamuñ kenn la kon nag mu ne même photo yi bu ñu ëree fala yëq du wàññi saliku la am cum jom bu ñu uutee photo yi gisit yàqalu ne dara ci lañ gis la sa waaye borom fu toog moo kii jàmbar la même bu gisee kii gis mu dikkee photo bu rafet kii gis photo bu ak photo bu njool kii gàtt lool kii tuuti lool kii am xorom lool ki ñàkk xorom lool du ko yàqal dara moo tax ki nga xamante ni moo xam ne photo bi ko ràpp bàyyi nañ fa iyaaka wal iraada xan kulli suurati mm-hmm. moytu ne kon ngay woon gannaaw photo boo gis isaa romta min siril wujjóot li xaar boo bëgg gis siril wujjóot mm-hmm. bul def boo gis photo ba daje la dukki benn la ci photo mm-hmm. ah, léegi nag photo moom daanaka xëy xàmme photo ba nag xaari dëgg-dëgg maanaam mëccoo moom photo ba la gis foog ne yàlla la gis xaari nag borom photo la gis moom soo déggee moom borom photo ba la xam waaye photo ba kii de photo diw la ana diw ah wax dëgg mosoo ko gis moom waaye kii danañ photo na ah te kat li nga xale benn photo soo rek lañu gis boo xamante ni photo moom ñu ngi koy seen ci euh, caméra bi ñu koy seen waaye gis daje ko soo moom suñu ko gis toog moom kon nag même bu photo yi wóoree falaa yàq doo saale ka anoon fa in xaal boo xee xaayul waxkat fa Moussa Moussa axaqun ndax xaqu la maanaam axaqoon moo gën a yelloo bi asa sifati mi ne wël yi buñ ne Moussa moo gën a yelloo nekk photo ba wël ñu wax ko xam nga léegi ñoom yaa ngi foog ne kii moom moo kii borom sant wu rëy yii moo war a gën a yelloo foto bi ci borom sant yu ndaw yi naka tey kon ñu ne Moussa ah xubbi haa si sifati ñu ne wali ah wasaala te laaj na aruya waaw yéen bu fekkee ne am na ko wax loolu yow boo waxee nii boo waxee nii tey ne foto yaa ngi nii waaw ñu ne la waaw yow yéen yow ñoo ne Moussa xanaa moo gën a mën a xam foto ba ci wali te nag Moussa mi ngi laaj gis ko yow tey ba la di posé question ne waaw Moussa xanaa moom mii laaj na wan ma gis la xanaa moom moo gën a for wala lu tax gisu ko xanaa su ko gisoon du laaj nga gis ko kaay ma kaay ma gis la xul naa loolu ñu ne ko sabata sax naa xendaka na ka yow xendaka fi yow sax na si yow in kunta muminan bu dee xam nga iman laa wa in lam takun boo nekkul min ahli kaf yow boo bokk ci ahlu kaf même bu dee am nga yow yàlla weeralul la li xew li nga nga gëm ne ana nabi rasuul salaa sallam axbara moom moo solo ana ne yàlla yetta jàlla day génnee fi sóoratin ci eh, melo wa yetta xawala mu sansaat ila sóoratin jëm ci yeneen melo dégguloo yéen ci wax loolu wa am na ko moom yoo arafa des na ko xàmmee wéyun kër ñu koy ñàkk a xàmme ñee yow bu dee gëm nga yonent wax ne day tëjali ci sóora day saase nag foto euh, yi wa yetahawalu ilaa sóora si wa annahu yu'rafu wa yunkar léeg-léeg mu mas kaw léeg-léeg mu feeñ ñu xàmme ko léeg-léeg mu dikk rek dikk ñu su ko defee mu def tanakur ci maajob def taaruf ci xaarif yow dégg loolu in kunta bu dee nekka muminan laata su ko doon sikki sàkka fi ci lii bu daa am nga iman yonent bi wax xanaa waxu yonent moom loo weddi weddi weddi xanaa waxu ko wa na yonent bi xat bàyyi naa biral na kon nag ana tëjali naka feeñ fi suwari feeñ nga may feeñ ci fi suwari bi àll bi xam ne ma nga nekk ci am day ko tëjal ko bi maanaa tëjali ba nga xam ne moom la bëgg a feeñee xeexee te ba bëgg a feeñee day boobu lay indi bu bëgg a ci tuuti tuuti bu bëgg a ci rëy rëy bu bëgg a ci xees xees bu bëgg a ci ñuul ñuul lu mu bëgg a feeñee bi àll bi xam ne yow war ngaa gëm loolu ndaxte yontu ma ko fooy taalamte boo xam ne asa lii taalam ngay xam ne ana Moussa Moussa xara a gis naa alaxaqa bi maa ci la xam ne ko moom mu tëjëlee ci la tëjëlee bil awliya ci nga xam ne ko nag Moussa gis na xàq ca la yàlla la xàq de feeñee awliya war nga xam loolu isa awliya ba xam ne ana woon yàlla lii awliya yi su Moussa xamee ne yàlla dana feeñee ko ci awliyaa fi sóoratin muxtalifatin Moussa bu xamee ne moom xàqu buy feeñ ci awliyaa yi day feeñ ci fotoñ uute xam na ko moom ne yàlla du feeñee melokaanu waliyu sàngam bàyyi waliyu sàngam yàlla day feeñ ci melokaanu yokkal li uute li ànd na Moussa ndax Moussa waliyu laay soo fekkee ne xam nga xam nga lii lu ma ne yàpp Moussa dafa nekkal ah ba ko daal Moussa wali la <laughs> dégg nga de ndax lii dëgg-dëgg yàlla ba ko dal ka waaye waaye alhamdulilah rabbil alamin bi nga xamante ni moom xanaa bu nit ñi duñ gëm duñ duñ gëm oustaz waaye dañ gëm nag xanaa bàyyi Ousmane Ndiaye boo xam moom mu ko jëlee ci nga mbay jaxal leer na Moussa ndaxte wali laay wali yàlla waxal alima xam na salika mm-hmm. kon Moussa wali yàlla te na loola ne yàlla day feeñ ci feeñ ci feeñ yasaru min shay'in ala shay'in la daa shay'in wa qablahu wa ba'dahu kooku gannaaw bàyyi wax na ko mm-hmm. la may feeñee ci ay feeñeekuwaay kon Moussa wóor yi la xam loolu mm-hmm. wa min taxaasaa lu mel naka loolu mm-hmm. laa yax faa umpewul loolu umpul kenn Moussa kon lii loolu umpul ko wa innamaa sa'ala laaj attajali fi sóorati lati lam bëgg a jot nag yàlla feeñoo ko ca foto ba nga xamante ni laa tuddri koo du ko illal anbiyaawu lu mooy anbiyaawu booba dama gënal ndaxte yàlla feeñ nga may feeñoo awliyaaw ya boo moom Moussa gis na ko xam na booba kon nag ba mu bëgg a xam mooy ba mu feeñee rek feeñoo ca anbiyaaw ya laa ilaha illallah moo tax ba mu demee Baye Ousmane Ndiaye wax ko ci feneen ne ko Moussa yow ñun xaarifina yu tudd sax dañu gis eh, dañu gis yàlla xàqu yow nga naan arin ne anturi la ko mu ne ko eh, ah Ousmane man waxuma ki ngay si wax man tëjali sóori laa wax te tëjali sóori anbiyaa bu mu ne ci ne anbiyaa nag boobu laay seet laa laaj waaye yéen bi ngeen gis ni bi ngeen gis ni moom gis naa ko pare bi ngeen gis nii ci wàllu awliyaa booba gis naa ko ba nga xam ne mu gën a kawee bu anbiyaa awliyaa mooy anbiyaa boobee laa bëgg a laaj illa ano ko nag laa dëgg laa turu illa anbiya mm-hmm. woo mel ne anbiya yi anbiya yi mm-hmm. am na ci anbiya yi mm-hmm. am na ci anbiya yi man koo xam ne xasoo yoon ala yàlla bi ma xaameen taxawaay boo xamante ni lam yeneen wu amu ko xayroo ko moom yonent yi nag ba muy ba mu leen di sunu tëjëli ci tëjëli anbiya yi am na ci ku ci sot ba xam maqaam boo xamante ne lam ba mu am benn yonent am ko ah? kon nag Moussa la bëgg a xam ne ma ngi koy kalkalaa ni naka ma wax ak ka may wax ak biir tafaa yi wasaay ci muy gë muy muy muy mu dindi parawaar ya lii Moussa alayhi salaam yaa laahu ba muy wax ak Moussa amul benn jotlikat bu jaar jaar ci diggante direct la nekk. léegi nag ba nga xamante ni nekk na da koy wax moom direct mm-hmm. fa talabu Moussa Moussa Sakko alayhi salaam mm-hmm. mi rabbi an yaraaw ne ko nag jot digg naa kàddu gi direct bàyyi ko ci kaw mm-hmm. léegi nag dama laa bëgg an yaraaw fi tilka suurati léegi nag foto nga xamante ni boobu foto nga xamante ni yàlla baax maqaamu bi nga xamante ni maqaam ba maqaam booba lam laaj foto ba mu laaj. booba laa bëgg nga laa bëgg a teg ba nag loolu la wa amaaru yëtoo yahu fi sóorati na ti yaraa awiya waaye gis xàqu ca photo ba xam ne ci la ko awiya eh, gis fasaalika ah, di nga kubruhoo <laughs> waday noo loolu nag <clears throat> loolu lu xam la te lu ab la photo bii ñu ko gisi ci daay bi laay awiya di ko gis boobu moom tàmm na booba waaye bu la nga xamante ni tàmbal koo gis te ma ngay dégg kàddoom boobee la bëgg a gis nag kon nag yow mi nga xam ne yaay wéddi kon li ma bëgg a wax wama lan moo tàqalu mis la asa yow nag lan moo def yow ñooy contre ngay wét lu mel naka lii àla tariqi intiradi ci wax contre bi maanaa wama jaalaka da koy firee fi maa kon wamaa jaala ko defar la yow miy wér taaxoolu nga xam ne asaan in ala tem na ko ala tariqil intiraj ci yoonu kontor yow miy wax waxuloo ci yoonu kontor ilaa li kawnika lu may nekk nga nekk yow lasta di wali yow da ngaa wali aarifin boo nekk da ngaa nekkul wali aarif lee tax nga kontor kalaas goo bokkul nag waroo bokk ci ga yow demuloo université yaa ngi nekk ci da nga am euh, bu ndaw baa ndaw waa ji jàng ba dem da ba jàng ba xam da nga am ba licencié wax xam-xamam nga ne ku du dëkk yow du jàngagul xamagul ci science dara ah ci yaa ngi toog tool di nga ñu laa jàngal ay alif ba saa mm-hmm. nga dikk nag ni ko yow ma xamante ni yaa ngi am licence dara kon nag sa contre bi dara warul ko illa li kawnika lasta bi waliin arifin mm-hmm. is ndax law kunta boo nekku min arifin wax ñoo xam ñoo xam la mm-hmm. saytoo nga dëkkale photo boobu walan taqi anka du la faddu man fasal naa duñ teqal xol yi ci moom fii jaabi su alika bi maanaam lii lii laa la teqaleel ci li nga waroon too li ma waroon laaj bi maanaam xam nga léegi laajteem nattale la fi la fi tegoon ku la laajoon ci nattale tontu bi nga koy tontu mi ngi nii kon nag yow yaa xamul gannaaw doo xaarif balaa nga dax xaarif nga nga ne déedéet kon nag yow xaarif bi mu wax lu ci sa xanaa wi xanaa waane kon nag noppi intaha yem na askiir askiir man di man di wax dëgg yàlla gis naa wax bu ma neex ba tey waaye wax bu ma neexee ni wax bii man daal wane ma wax moom bët bu set rek bu génnee bu génnee li nga xam moo nekk ci gafaka gi rek nga ne kii de mas li mas a génn waaye façon bi da ngay seet façon bu rafet bi rek tëjali sóor yi mm-hmm. boo ko waaw ban photo la feeñ yow xam nga gis gis naa ko ban photo photo bale moom ba ne ci numéro 3 ca wala ca 4 4 wala ca 5 5 wala ca 1000 1000 ak nga sori balaa nga ko gis moom da ko gis ma nga mooy direction mooy ca kilifa nga dem yow ba mu ca kumtukan sax fa biyaa xarafuri ca ca man ngeen ma xamee ca man ngoo ko koo xamee ca man nga yow boo ko rak xam ca moom nga moom nga dañ maa wax ak man naa gis ah ibu ju mu ne hmm. maa moom a kiraat duñu benn bu leen bu leen bu leen xëcc moom mm-hmm. yoonu islam te éliman jaay si di baraam mm-hmm. xam nga dañ dikk na ko bàyyi man ci laa bokk mu ne leen kii mu ne leen man maa moom yi mm-hmm. bu ñëw na bu leen xëccoo nag borom alal kay ne man ci laa bokk man baaw bu maa la ci boole nag waaye nag suma kon nag gis nga ko day bàyyi fan jaay dëgg-dëgg diggante paas cinquante neuf bi ba ci soixante bii gars yi maa ngi leen ci orienté ngeen déglu wax ji wax ji nag mm-hmm. xam nga gars <laughs> xam nga wax yi wax yi mm-hmm. day pikir nit xaari bu diggéeni fi ne day waaye bu leen yàkkamti <laughs> laa tajal bi xool mi tey kat aaya bi léegi li mu wax laa tajal bi xool mi xam ne an tuqra ilayka wax yu oy yow alquran bu yonent bi ñu ko wax yow rek message baa ngee daw jeexngu mm-hmm. yonent bi yàkkamtee ma kon ma ne ko déet bul yàkkamti bul yàkkamti toogal ba message bi jeex ah? wa inna alaynaa jam'ahu wa qur'aanahu ñun ñoo koy dajale ñoo koy jàngale yow koy nekk tekk rek moo tax gis nga fi ne mën ngaa dugg ci lii léegi nga commencé si maarifa rek nga bëgg nag li ma xaari fi ni waxoon bu njëkkoon yëpp nga dikk tey dajale ko ci ñaari fan ñetti fan wala benn weer bëgg a sotti ah ah ah man de ah te nit laay jot nañu yàqamti bëgg nañ tey tey tey tey jii joni joni hande kadi <laughs> li nga xam joni joni par fida léegi léegi léegi léegi léegi nag bu leen yàqamti ah maarifa xaju ci genn mbàq kon nag moo tax ñu ko cay def par ndànk par ndànk dafa diis xaqiq dafa diis dafa foog kenn du xay yenoon loolu la ba nga xamante ni moo nekk ca biir xaqiqa yëpp da ngay ndànk mosaan nank waaw kay ah wa minhu aydan jël ci radiyallahu anhu wa min al jawaahiri jël ci jawaahir inda qawlihi taala falahum aj am nañ ajurun fay xayru moom noonu ñoom ñi xam ne mooy gaay yàlla am nañ pay goo xam ne da mukk mukk mukk maa nasoo firi na pay gu dëgg xaala wax na ibnu atiyata boo fi xadis nekk di hadis an anas xaala xaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam cëy waaye yal na yàlla fay isaa balaqa bu jotee al mu'minu mu'min xamsiina sanatan wax ju rafet dégg mu'min ba amee cinquante ans xafafa day woyofal la laaw yàlla xisaaboo eh, xisaabam juróom fukki at yàlla boo ko amee di ci lislaam dañ lay déchargé wàññil sa chargement bi bu dee yaa nga dundee lislaam nag bu dee yaa nga dundee diina xam nga boo gisee nit ñi am problème nekk ci diina ci dindoo diina te chargement diina ci sa kaw te sa doole wàññeeku da ngay defe naa fii nu yaa ngi ci biir diina ji mm-hmm. ba nga nekkee ndaw yëguloo chargement bi mm-hmm. léegi nag nga commencé màggat te des de sa wax sa jikko ji ngay gën a diisaat waaye soo nekkee ci diine ji te liggéey ci diine ji nekk mag noo gën a nekkee mag yàlla dafay de si waaye mag moo xam ne moo gën a bari histoire ak i jafe-jafe xamal ne du nit magam lislaam magam lislaam dafay dafay dafay nekk nit ku ord day nekk nit ku ordinaire waaye lii lii lii ku dégg doo doo doo doo doo sa sa sa sa sa kii sa jikko xafafa allahu isaabu muy ne toy way saa baraka jotee suti soixante juróom-benn fukki rasakoo daf koy warsagal al inabata ilahi def na ko delsi ci man bi maanaa man maa laay uutu ci sa uutu ji loolu mooy inaaba dëgg dëgg dëgg naa it ilahi léegi kon nag moo tax ko nag magum l'islam day gën a am xel xel ma day gën a accéléré magum yéeféer day gën a nu gën a màgg te gën a ñàkk xel li <laughs> nga fi nii koo xam ne dafa tubaabe tey bu nekkee mag xale yaa ko ëpp xel xel ma day wàññeeku wàññi jëm suuf magum lislaam nag xel ma day màgg jëm ko mm-hmm. ah ah nii yéen da ngeen defe ne fi nii Oustaz Gueye mi dégg fi ne dañ nekk xaalis su ndaw a ndaw a ndaw mm. ngeen di jàng tuuti muy commencé di muur muuti rek commencé ja ta kii mm. nga toog koo xam ne depuis 66 ba tey mi ngi jàngal. Mm. tii nga lu defu dara. ah man de xaw ma yàlla def naa def na waaye mën nañu jàng foofu daal <laughs> te am na ñoo xam ne dañuy jàng rek fi ne am na ñoo xam ne seetal bi ñu dalee jàng bi xam ne ñoo xam ne seetal ba gisatu leen. préparé na sax mboolem ñi nga xam ne ñoo dikkoon ci jàng bi. Mm-hmm. mel na ne ni ma leen gisee man sama gis-gis. amul woon soxla ci xam-xam dañ doon am luñ jël pour bëgg am luñ nekk liggéey ak di ko kii ñu boole leen ci groupe groupe bi daañu mm-hmm. leen ci groupe bi su dee oo delà du enquête puisque loolu la pinitul elle peut ñu pini leen. ah. non non non fi nii mm-hmm. man dinaa waxtaan dañ il faut ñu seet xam naa leen danaa jox ñu génn leen ci ñu génn mm-hmm. bu leen nee bu leen nee def gannaaw ñun seen bopp leen doy waaye keneen moo leen doy ñu def. waaye bëgg a boole yàlla ak leneen man mosuma ko nangu duma ko nangu dërsu bi daal boo ko bëggee mi ngi nii waaye waaye doo oote doo dikk doo wax doo def mm-hmm. ñun mosu ñoo soxla sa dërëm mm-hmm. waaye nag xanaa bëgg nañ nga xam ci yàlla mm-hmm. yaw nag soo jëli boo jëri boo jëri ñu ci yàlla yàlla ñuy jëri waaye soo jëri yootul ñun duñ jëriñu si yow doo jëri yow doo jëri ci kon lu si kon nag ngi nii léegi nag nga am juróom benn fakkat rasaqoo al inabata ilay mu mu continue faysa balaq ba jotee sab soixante-dix ans a boo def ko bëgg asamaan yi waa asamaan dañ koy sopp waa asamaan moom yaakaar naa kuñ sopp da nga am contrôle ñu ñu la contrôle waa asamaan dañ lay bëgg faysa balaq boo bu jotee samaane na juróom-ñett côté ba dañ bind asanaatoo lépp loo xam ne wa yu jaa dégg nga wa yu jaalisu ah laawoo an si at yi mm-hmm. lépp loo xam ni bi def na ko mooy lu rafet mm-hmm. dañ ko ko defar dañ ko ko noter ci eh, téere lépp lu mu def muy lu ñaaw dañ ko effacé na ko baal nañu mm-hmm. gannaaw jaamu na yàlla di jaamu yàlla ba am juróom-ñett kat yaakaar naa sax du defati lu ñaaw gannaaw mi ngi doon def rafet ndaxte fi ne dafa làggi làggi ah, ku laaj gi nag yaakaar naa doo mën kon bu defoon lu ñaaw sax même bu defoon lu ñaaw foofu influencé nañ ko yoo xamante ni moo ñaaw fooy jàppalak bu jotee juróom-ñeent fukki muy quatre-vingt-dix euh, quatre de ku fi rek jégal sunu boo ay bakkaaram bakkaaram yépp amatu bakkaar mm-hmm. wasufa fi ahli bayti mm-hmm. daañu ko may na ko sawaa néeg yi sawaa kër yi ñi nga xam ne samay jaam lañ nekk ca biir te am ay heure heure may naa la nga defal intervention sa jaboot yooyu bay fii wakkaan dafa nekk ay seralaay yi fi àdd yi boo déggee prison yàlla bi mu def ci suuf yow prison yàlla nga léegi prison yàlla nag boo ko nekkee moom mooy fi nga xam ne moom am nga am nga indépendant xam nga am na prison yoo xamante ni ñoom bëggatu ñoo génn prison gën gën a prison prison yàlla yow asar laay fi abdi yi fay saa balaa ko jotee mi atal téeméer wala mu yàlla defal say an dara juleetul defal dara kataba laaw loxo mitama kaana ya fi si at yi yàlla def koy noteel lu toll na ba mu nekkee ci wér ga lam doon def ñàkkaay lam doon julli julli yaag woor yaag yëpp bu koor jotee ñu defal ko koor na bu julli jotee ñu di ko nettal ko jaamu yàlla yëpp dañ ko nettal ca ba wér dama def ah wala mu yuktab na ko seet nañ ko bindal benn ñaaw teef ah moo tax lii nag ngay gis mag bu naaxee day dem sax bay këf xale di seet moom te du jële bàkkaar fekk na booba nekkatul wa fa aqibaraati anas mm-hmm. lii lettre anas la yonent ci wax ko ita balaqa bu jotee alabdu arbahiina sanatan boo demee ci lettre anas ca fin ba nee bu nit nit amee ñeent fukki at amanoo wóor ko ala yàlla mi balaa ci natu salaasa nit bu nekk ci jaamu yàlla baax ba am 40 ans yàlla dina ko garanti ci euh, ñett yëf aljunoonu dof du ko dof du dofati mukk wal jisaamu ak ngaana bu mm-hmm. ko defati mm-hmm. wal bërësi ak siti bu mm-hmm. ko defati maa siyaari ci maa taqadama dañ koy defal lii ba pare ñaamaasal ko ci lay passé woon la kon koo dikk am ñeenti kar jinne da ko jàpp déedéet daa fekk te loolu góor ak jigéen a ceeb kat bu fekkee daal yaa ngi topp yàlla ba am ñeenti kar léegi moom ñeent fukki at am nga garanti na li sa lii moom léegi sa dund doo ca dof doo ca gaana doo ca siti ah, kon nag lii de <clears throat> wax la yoo xamante ni lañ dem ah moom jëlee nañ ko ci sama gaaya ah, mu inda maa la maam kii mu indi ko ci jaayir moo ñu ko indil jëlee ko ci anas aras jëlee na ko ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam indi ñu man dal ma yërëm ko contre nit yalla yi mag ñii ni nga xamne ñoo nekkalu yalla de indi wax yalla tay nak ay bandi jox de contre ci mag ñun yow ngay déglu contre bandi baña di euh, nit yalla wax deug yalla war nañ laa seetaan nag nañ ne ko te mbolem tay ñi contre jamono bi tay ñi nga jëlee seen xam-xam ci say say ya ko ci bax bax yaangi ni nga la way sama maa ngi leen di yërëm maa ngi leen ñaan nañ génn ci wax ñoo xamante ni wax contre kat boo xamante ni nguur la doon ut wala daal islam ñaar ñii ñoo na complot arab yi nga xam ne ñoo ñoo doon ut diina ñoo doon ut l'islam ak tubaab yi nga xam ne ñoo doon bëgg a daani ñoo daani ñaar ñii ñoo àndoo ñu ne àndoo ndax ndax ngeen daani sërif yi ak nit nit diina yi su ngeen leen daanee mën a falu su ko defee ñoom ñu fari ñoom ñoom ñoo nekk ci ñoom ñoo gañe fekk ñoom dañ leen gañe ñoom buñ gañee gañe nañ leen daa yàq nañ seen diine tey mboolem arab yaa ngi nii kenn ku ci nekk tey su doon yaa ngi jàng de déglu seen kii tey ñoom ñëpp jaay nañ seen diine euh, Amérique ak Israël ñu ngi nii problème bi nga ne moo xew tey diggante Israël ak ak ak kii ak Iran mm-hmm. ku ko def lu mooy tubaab yi mm-hmm. samaam bi gënoon fort ci samaam yi rey nañ ko mm-hmm. tey démb Moussa musaat ki gënoon fort ci Moussa ci Moussa ci Israël moom it dee na xam nga fu ñu fu ñu jëm léegi nag ñoom ñaar ñooy toog songoon tuwaay da tuwaay da di ne waaw nag te réew ju dee tey ñu naat tey ñu noote lii moo fi nekk yàlla nañu yàlla mosal ci ñii ñàkkaa jaar ci yoon yi mu ñu ko indi wa minu aydan qaala ibnu wax naa ibnu arab yi ibnu arab atam firilati maana soo maa ngi lay indi loo xam wax ja mooy lii maarifatul abdi xamuk jambi na sowo boppam min awlama mi ngi bokk ci nga xam ne moo ëpp priorité àll ci moom yaa ngi dégg sonse nit ki xam boppam mooy ëpp priorité ba ëpp priorité mooy nit ki waxam mooy kan awlama àll yi moo gën a nekk priorité li nga xamante ni ma ko war wa aakidi te moo ci gën a feddle ko اسنا لا يعرف القمر بوبرم الا من لم يقل لها رب قمنا فوق واي نك بلا نغا خم سنا فو بوبنا نغا خم سو بروم دغنا لي واخ لي جيس لي واخ ني واخ ني نك ني واخ ني ني نك كين مونتا قمر بوم تانك دا نغا خبو سا بوب فيك نا نيوم لا تاخ ني واخ لي داي لين خمالي سين بوب تي لين كي waaye dëgg-dëgg xamuñ seen bopp tigi tigi tigi suñ demoon ba xam seen bopp tigi tigi tigi dañ xam ne seen naf si nekk ba mañ fa ba mañ fa jële xam-xam kon nag dangaa mën a dàq sa xam sa bopp ba mën a jël ci xam-xam te ko am boobaa ci nga mën a am xam-xam qaala taala wa fi anfusikum afala tubsirun wa fi anfusikum ak seen bopp afala tubsirun bi maanaam afala tubsiruun fi anfusikum waaw yéen tey ngeen a xool sa bopp xam nga xool sa bopp boobu xibaar nga ci jëlee am lu mu jox ci xel xel moo mën a puus la nga seetuwaat ba xam nag ki nga xam ne dëgg dëgg dëgg dëgg mooy ki am nga arrière na doo ko xool sa doo ko xool sa bopp masalan mooy li ñu koy waxee ñun ñëpp tey mooy yow mii nga nekk tey jamono bi nga xam ne bu ci yàlla waxee mu mu sutanoo fi gars yi kenn ku ci nekk xàqu nam tëjale ci yow ci sóore yi ñu doon léegi photo bu nekk nam ci feeñee bokk na nam feeñ ci kenn seetal kii seetal kii seetal kii seetal kii seetal kii ndax bokk nañ ni ni ñu taxawe te nag kenn feeñ ci feeñ léegi nag lu indi nag ñu uuti nii nag kon mën ngaa xam ne uute nii dangaa war a xam nag li ki ki ki uute balaa nga xam ñi uute dangaa xam ki uuti ki ki uute dikkin bi ngay xam balaa nga xam dikk ni waaye xam dikk ni nag xam ngaa jàggee ci dikk ni doo ko xam ki dikk ki mooy lan nañ dem léegi ñu ut passeport sa un bii un la un bi du sa un un léegi nag lañu ko xamal la ko dalee ci aadama ba fi ngay nekk sa baaba gi kenn mësu ko nekk ak xale bii ak soxna si kéeg gi kenn nekkul seen bi nañ dem uti ab ab am nañ dem di uti passeport ndax seen un bi kenn man su ko nekk déedéet ndax kenn na ko nekkaat déedéet kon nag seen bi loo cee jàngee kon nga cee jàngee pour xam këram këram boo xamee kooku piir nag doo ko xam sa bo sa bopp piir kon nag man arafa nafsoo kon nag xaala taala wa fi anfusikum afala tusirun kon nag ci xool na ah, xool wa xayruma ayatin ak mu benn ayat fi taalika mm-hmm. ah, wala yéen koroo du weddi xaaqalin ku ne am na xel mm-hmm. yi neroo am na mën a si ci na sonn mm-hmm. ku am mu ne waxula dëgg déedéet ku am xel ba am ne waaw wooyu nan bu nekk sax yu jëri ko do jël xàqat dëgg dëgg róom bu ko si xamul dara ne am na kasaalaka na ko noonu laa yàq dina xamut añuñ këram mu weddi wu jëloon baari noonu nag na nga noonu la téye nga mën naa wéet mën naa wéet sëru gi man mm-hmm. laa wéet ña baari subaaroo seet naa alif nga xamante ni dal moo teg la afaluhu alif mm-hmm. ay jëfam moo ñu ko xamal wa in lam yudrik même boo dëgg dëgg baari mm-hmm. xam nga ne baari xam nga waay ndax sa xel mi sa ruux gi mën laa def idraak mën na ko def yow sa bopp gi nga xam nga ne sama ruux gi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 bu bàyyi Ousmane bi ci xatam juróom benn fukk bi ci suuf bàyyi Ousmane loolu indi tey wa min jële naa ci tenox jaayir wa min asiyati saawiyati ak asiyat saawiya sarala mu ne fa sujjoodu sujjood yutlabu boo xam ne ñu ngi sàkku li tas bii ñi dafa dafa dafa def tomb rek waaye day mel na ka kii waaye euh, masque la sujjóot bi nga xam ne soxla nañ fa sàbbal wa tahmid ba sujjóot yu nu fii ak tasbihu wa tahmid sujjóot dañ bëgg boo ko defee te mooy tëg ji ci suuf ci saay ñuy sàggu nga fay tàbbal mooy setal yàlla wattam jii di ak hamdu nga ne subhaanallahi wa am jii woyu law fii aydan dañ caa bëgg adduhaaw ñaan boo sujjatee texte bi ci suuf mbaa may dégloo astu boo sujjatee dañ bëgg nga sàbbal sant ba tey nga ñaan ñaan nga nag nga seet nag xanaa ku jur doo ñaan lu bon leen daal bëgg nañ daal ku ci jur nga sàbbal sant teg ci ñaan bunt bu am doole la boo sàbbalee ba ne subhanallah wala subhanallah ah, walhamdulillah ba pare subhanallah wa bi indi yàlla yal na nga ma may nangam boo ko mën a wax ci arab boo ko mën a wax ci wolof bu bu réy noonu wa mimma ruwiya fi ma yuqaalu bokk na ci li ñuy wax ñu ne boo bëgg boo sujjóotee nga ne allahuma uktub lii bindal ma bi xaaj sujjóot bi ajran tiyaab wada xan ni biha wisran am nañu ne bokk na ci liñ bind ne dañ ko fa ñaan nga ne yàlla sama sujjóot bii bindal ma ci tiyaabu sippilu ci say bàkkaar mooy li gën a ëpp important su ko defee nag boo ca ñaan leen nga ñamal ko ci waj al daxaa defal lii ñaan ma indi ko feew sukkuran ba tey yàlla na nga def say si jot bii li nga xamante ne moom nga ma dencal ca tiyaabu mooy denc boo xam ne yaa ma ko dencal wa taqabalha nga nangu ko ci man kama taqabaltaha nag ma nangoon min hablika sa daaw sa jaam ba daaw daawat nag ma nangul ba daaw di sujjóotee na nga ko nangoolee nga la yàlla nag ma nga nangoolee sama sujjóot bii ah bi ñaan nag jar na bind bu ngeen pare ah di ko ñaan di nga ni a yaafus ci nit ñi nag nga fa euh, li moo ko wax ni xamatuma ko man yambar laa de bu leen ma ci topp rek bu ngeen demee fexe leen nga jàng allahuma oktub lii bihaa ajran wa daani biha wisran wajha wajha lii hendaka sukran wa taqabalha minni kama taqabaltaha kama qabiltaha min abdika daawud alayhi salaam daal di si daal di si gis sa si jóg lii nii ah Baye Ousmane Ndiaye bokk na ci lam toxale ci jaay te mën na caa jël mën nañoo jël ak kaam jël xaal xaal wax naa Aboubacar Tartosi imal eh, liggéeyal li dul yàq bi xadri muqaamika kem lu tolloog sa sa dal gaa coom sa kem lu tolloog sa sa taxawaay ci àddina sa sax fi den liggéey liggéey boo xam ne mën naa toppatoo sa dund comme liñ fi nekk waman li àqri nga liggéeyal sa àlaaxira bi xadri bàqaay ka kem sa des fiaa ci moom ndax si bàqaay ba baqaaw àllaaxira baqaaw du jeex du amaat kon nag liggéeyal àdduna liggéey bu tolloog lañ fi toog waaye bul dem jël àdduna nag ah, def ko muy loo xamante ni ah da koy topp ba fàtte wala faniñ eh, fanweeri at juróom fukk téeméer ba àgg téeméer wala loolu bokk de liggéeyal liggéey boo xam ne mën nga am mm-hmm. àdduna ak àllaaxira comme sa des ga fi ah wastahi na nga rus mi naa caala bi xadri xurbi yi kem nam jigéen ak yow yàlla nam la jigéen na nga wéeree ne nan la yàlla jigéen rusee ko nam la jigéexee ah wa adla wa adlahu ab ah wa atiqu ok da ko yàq wa atiqu na nga ko topp xaaral ma defal ku baax waaw waaye yow kat sa téere bu baax na fi moom ndax dañ ko defaraat taataan wa atiiu na ko topp ah wa atiiu toppal yàlla ah bi qadri xaajatika kem sa xaajo gi nga xaajo indi ci moom comme ni ko aajo toppe ko waqifu ragalal yàlla bi qadri qudratihi ci tolloog dooleem alekewul yàlla nim la manee ak dooleem jëre jim am nga nga nga ragale ko kom dooleem la waas yi na ko mooy bi qadri sabrika kenn nga mën a mu li naa gannaaw mën ngaa muñ safara moyal so de kenn na ko mën a muñee maanaam ko muñ ma ngay mooy yàlla bañ caa génn ko ah sa waay li nga muñ safara de ndaxte mooy yàlla koo gis kay mooy yàlla ba mu nekk ci mooy yàlla mm-hmm. foofu bu dee rek nga dugg ci kàmm ak ku yàlla musal na ba nga génn yàlla rek mën ngaa génn ci kàmm ak safara mm-hmm. ah kon day intaha min siraajil munir benn téere bi wax siraaj munir bi naqali saali bi saali ma ko soxla inda qawli taala falyadhaqu qalilan walyabku kathiran ba mu ko jàngee la commenté ree lu tuuti te jooylu bëri alquran moom ko waxee la commenté nag firee ko firee bi mu xam ne si ne mu lay wax nii wa kataba alfaqir ilallahi subhanahu osman ibnu ahmad tijaani dégg nga maam radiallahu anhu amin xam mille trois cent cinquante sept wa minu jëleen ci aydan ba tey bismillahi rahmani rahim وصلى الله على سيدنا محمد وعلي وصحبه وسلم أما بعد دنا بما ما سنت يلا فيقول رحمة بن أحمد التجاني في تقييد الآدز الوارد في تنك أي وقت أن يقول في فضل أعمال المؤمن ci جفي ci ngëneelu jëfi jaam bi àll fi nga xam انس arwaaxaa maanaam rasulullah salaa salaam anas ngëneelu jëfi jaam bu gëm bi yónnit ko wax anas wax ñu ko bàyyi Ousmane bëgg koo li gën a andi nag wax nag firil ko in umral abdu inna umral abdu arbaina yakoonu min salaasatin amin ah min barasin sumal junoonu wal jusaam xam nga ba ñu xool fële la bëgg a wa in umira buñ dundalee ala du jaam arbay na ñeent fukk yàlla bu may jaam di dund ba am ñeent fukkat yàlla muy jaam yàkkoon na nekk amee na de xelam xelam da du wóolu min salaas ñetti ñetti ñetti mbir ku xam ne dund nga ci jaamu yàlla ñeent fukki at yàlla yàlla dana la garanti ñetti yëf dul dal min bari si mooy jàngoro yi siti su ma junoo ni ndof wal jusaam ak ngaan koo xam ne yaa ngi jaamu ay yàlla ba am ñeent fukki yàlla lii dalu la ci biir du la dala si in saa ah min millatul islam bu dee fekkee na ñeent fukki at yi mi ci millatul islam loolu de kon gannaaw yaa ngi dund ñeent fukki ci millatul islam jaratul ngay dem naan naa def figure pour mucc si yooyu bu bu bu dalee borom bu ne dafa jinne ko jàpp ku dem ba am ñeent fukki at ñu ne jinne ko jàpp daa fekk booba deewu doon ci nekk doon ci biir suma isa atawo xamsoona sana xafafa min xan isa bi e, an isa bi mutil mina suma isa ataw bu ko defee xamsoona juróom fukki sanata juróom fukki at yàlla nga dindi ko ci minatul islam xafafa dañ oyofal an xisaab yi ci buñ koy xisaab mootil minan kiy joxe xéwal yowmal qiyaam buñ koy audité audit bu wees lañ ko def ah bàyyi na ko mu dem ah mu jàll bàyyi na mu dem boo amee juróom fukki at ci jaamu yàlla yow boo xamee booy ba nga xam ne sa sa sa audité yowmal qiyaam day yomb wa bi sittina rusiqal inaaba muhasiran li rabbihi mataaba troisième woo bi nag xam ne am nga juróom benn fukki at yàlla ah boo ko dundee ci bit di taab rusiqa daañ koo wartagal al inaaba bi maanaa léegi bokk na ci parti yàlla bi muhasanan moo rafetal nag lépp ci morom maanaam martaaba kooko dafa am tub yàlla dina ko may tub goo xam tub bu rafet la may tub goo xamante ni njaxase du ci amati ndaxte nit day tubam yàgg mu tubbi booba nag boo amee da nga am tugg goo xamante ni tugg goo xamante ni àll arrière di ci amati ah yu boo àll sama àll sama yi xiina isa arta min omrihi sab on yu boo dana bëgg jàmm quatrième àllu sama yi waaye jamono ba xiinan ceeb temps boobee isa arta bu dikkee min omri dinam sab on juróom-ñaar fukki at yàlla ku dund ba am juróom-ñaar fukki at yàlla waa asamaan dañ koy bëgg te asamaan kuñ bëgg rek day fekk yàlla yàlla moom moo koy bëgg ne yéen waa asamaan yéen malaaka yi bëgg naa diw siiwal ci asamaan yi ñu ne bëgg naa diw ñoom ñëpp ñu bëgg su ko defee nag addis ba dikkaat ne ñu ne ñu tasaare nag bàyyi turam nag mbëggeelam ci waa ñu bëgg ko yuktabu maa qad amila yardaahu min taatin bi tooni ma janaaw cinquième yuktab dañ bind maa lépp loo xam ne xat amila def na ko yedaaw ñaar loxo min taat ndopp lépp loo xam ne def na ko ci lu baax dañ ko ko noteel ci carnet carnet ba nga xam ne mooy mbaax ba bi doon ni maay janaaw bàyyi nga xam ne tooñ na ko juróom-ñaar fukkaat bu ko amee lu mu def ci jaamu yàlla dañ ko ko noteel lu mu def ci bàyyi yàlla ñu jàpp mooy yàlla ñu ne sànni leen ko vrai baal nañ nee na samaani na dégg kama kama bi ruwi xaman rawee xani na nawi yu soxo yëbil loxo wa tuxfaru sunoboxoo kama ataawul asal xenda samaani na boo dundee ci lislaam juróom-ñett yàlla kama bi ruwi comme ni nga xam ne moom la solo xamar wi ña ko soloo nañ ko soloo xaani na bi jëli ci bi annawi yi nga xam nawi ah, ah eh, ñoom niñ ko solo jëlee ko ci nabi yi ci naw yi yu son day def interaction ah, fii baytin la ko maanaam ci waa néegam may nañ ko ne ko sa njaboot gi defal leen intervention ku te nekku ci éefir war toog fër day ndigaloo euh, sunu ba ay bàkkaaram bàkkaaram yépp baal nañ ko te may nañ ko mu defal intervention kama ataaw na ko jotee al asr nañ ko jógee ci hadis lañ ko xal ne ko defal intervention yow may nañ la dara jaay tinu dara jaay tinu am nga ko ak itam baal nañ say bàkkaar wasaara min asral ilahina karim in balaka tisina xaabidu rahim wa saar day mujj min asral ilahina ca pression yi suñu borom alkarim bi maanaam ña yàlla tëj ci këram xadraam ba ca ngay bokk léegi xadratu ilahi ba léegi péeb yàlla ba xam nga léegi boo doon liggéeyal kii ba léegi pare nga dikk léegi kay kii ni mu liggéey xam nga léegi boo gisee sous préfet day nekk ba mu yàgg ñu xay jël ko indi ko ci palais am na luñ dee ci moom ne kii léegi liggéeyam tey capacité am passé na mu nekk ci sous-préfet ko ci kii kon kooku day passé capacité am ñu boole ko ci bureau bi yàlla ba ispalaka bam di tee atis ina habil rahmi ki ni ku ko def habil ki nga xam ne mooy jigéen ah, mooy jaamu ko nga xam te mu yërëme maanaam kuy jaamu ku yërëme ka kuy jaamu ku yërëme ka moo lay def nga bokk ci bit bureau tuktaba maa qad kaana xaamilan fii fii sa fi sa fi safatin bi dooni ma suno bii yuktabu dañ bind juróom-ñaareel maa lépp loo xamante ni xar kaa nekk na amee fii ci moom fii seetin ba wéree bu amee juróom-ñeent fukki lu mënta jaamu ci yàlla bu heure julli jotee mënta julli nootal nañ ko ko bu heure jaamu jotee mënta jaamu ndënd ko ah bi doo dégg bi dooni yi ah dégg nga bi dooni ma sunu bi ci lu bokkoon ay bàkkaaram booba du mu dem ci bàkkaar ñu ne kii bàkkaaram bu leen ko mi def jëf waaye nutal leen ko ndaxte heure julli fu mu jotaal ma ci jàkka ja tey mënta dem ci jàkka ja fay leen ko ñooy dem ci jàkka lañu lañu am ah kii daanu xoor tey mënta or fay leen ko ñi nga xam ne ñoo rek la lañuy fay moo tax soo mënee fay or nga def fay or soo continuer ba nga xamante ni koor gën a mën a ko def xamal ne yow ñu ngi lay fay li nga xamante ni moom la or kayam isaa balaqal mi saakal abidu faxfir lana ya rabbana ya waahidu sala alayhi rabbana wa sabi wa alihi wa kulli ali kon nag lii ma wax nag isaa bu jotee al mi saatal abdu jaamekat ba amee téeméeri at yii ah kon nag lii dina ko am faax bi la naa jégal ñu yaa rabbana yaa waaxi yow kenn ki sàlla yàlla ñu jëlee al ci rabbana wa sabi wa alihi wa kulli alihi bi ak ñi nga xam ne yaa fott bi yëpp yàlla yàlla def salaatu am yaa rabbal alamin ah li des euh, waaye mën nañ ko fi def mën nañ ko fi wala aydan fi taqyidil xisaali alladhi xam sàkkara sukkarat la anaamam tuddaaw yi day saafara alxalba xol alxaasi ah déglu jikko yoo xam ne day saafara xol boobu fa qaala wax naa radil xanu daawil xolooba in yaxsoo ah, fa xamsun fa qusha ya axana bi tawaali ah tudd di nga tudrakul qiraata sikru rabbi qiyaamuka li fi layaali daaul qalbi garab yi saafara xol in yaxtoo boowee ndax xol buñ ne xol boo mooy xol bu dëgër fa xam suñu juróom yaa ak xaanaa yow bi tawal hmm? tadabburuka moom la tadabburuka ngay seetlu alqiraata ngay jàng te bañ a walwali baat bi boo ko jàng ngay seetlu baat bi lim ak ban mana la ëmb loolu day tax xol tooy sikura bi fàtte ko yàlla fàtte day tooyal xol xiyaamu ka nga taxaw li taxaw bu dee pour la ci toog ba guddi nga jàpp ba set taxaw di jaamu yàlla day tooy xol wa fi sujoodi tadra minhu aydan xalaaul barni fi tilkal fisaani wa fi sujoodi wala wa tadra ak toroxlu fi sujoodi minu bokk na ci aydan ba tey ngay sujood teg si jëm ci suuf di toroxlu day tooyal xol xalaaul ba li fiix biir fi tilka kisaali li nga xam ne man tënne moom ah ngay fiixal sa bit ah, mooy jikko yoo xam ne du noonu maara nga koy fiixal sa biit day tooy ah, wa jaalis yaa aqana saa salaahin fa avis inturit darkal kamaali wa jaalis li ngay toogat yaa aqana saa salaayu nit ku baax tooga nit ku baax day tooyal xol nit ku baax na mooy nit koo xam ne boo dikkee du la wax boppam du la wax sa bopp te day wax yàlla paafis na nga sàn na nga sàmmante intrant ba na mais dara xamaane boo ko ba jëf ak mat na jàpp li ma la wax man soo ko jàppee da am ak xamaal asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.